jërë ngeen jëf mbokki Baol Info TV mbokk yi ki ngeen jàkkaar lool ci image bi nii mooy euh, Adja Soda Dieng mu nekk responsable politique APR dëkk fii ci Touba ñu bari xam ko ci Touba waaye tamit ñu bari di ko dégg ci rajo yi mu bokk ci parti bii di APR mbokki na xam ngeen ne àdduna bi noonu la tëddee gis-gis yi dañuy faral di euh, wuute euh, bëgg-bëgg yi di wuute Euh, def na benn déclaration wax ci tolluwaayu réew mi mooy manifestation yi fi amoon ñi ci ñàkk seen bakkan ak li yàqu ci dëkk bi consulat bu Sénégal bi nekk ci Milan bi ñu yàq wax na ci wax na ci ñëw gi président Macky Sall ñëwoon fii ci Touba wax na ci général Moussa Fall wax na ci euh, taxawaay bi général Moussa Fall war a amee ak ministre Antoine Diome wax na ci lu jëm ci euh, colonel Maysa Sele Ndiaye wax na ci actualité bi wax na ci lu bëree bëree bëree bëree bëri euh, kon mbokk yi ñu tegal leen déclaration bi nga xam ne euh, Adja Soda Dieng def na ko tey jii ci chaîne YouTube bi di Bawal Info TV. ginnaaw bi ma la ziar la jox la wàccuwaay yi gën a kawe di ñaanal xalif général des mu yàgg fi lool sëñ Muntaxal Basiiru ñaanal xalif généraux yi ci Sénégal yépp ay eh waay sëñ Muntaxa yàlla nañu ko yàlla tegal loxo dundal santan ans sans ordonnance yaa bëgg Sénégal yaa bëgg taalibe yi ñépp nga bëgg lu xew lu mu mënti doon rek sa loxo nga ci bu dee mbënn ma bu dee maara de accident lu mënti doon rek sa loxo nga ci bàcc ay waay waay ku la joxutu cër ku mu war a joxub may ñaan taalibey Tuubaa yi ñu delloo si seen xel ku tëb gudd boo cëppeeloo da nga gàtt sëñ tax ami bi muy bëgg Macky Sall boobu Macky Sall nekkagul président ñoom ñaar seen relation jiitu na xalifa mu nekk xalifa moom jiitu na président Macky Sall nekk président maa fekkee nag la tubaab bëgg lii may wax dama cee am lu leer te fekke seen relation jiitu na sëñ Mountakha nekk xalifa jiitu na président Macky Sall nekk président di Sénégal mu xamal leen ne leen nguur lu mu mënti doon yàlla moo koy fal kun fa yàkkun borom mbaar mi amul jën nit ñi nanu nan gëm yàlla te nangoo ab dogal ñaaw na lii di xew Touba bu yàgg ba léegi ay nit di ñëw di marché ca jumaay Touba ja di fa yuuxoo di taal ay essence di taal bitigi jaamur taal ay pënu ci Touba li man balaxa jii laa xam na ne sëñ Abdou Lahad sori na fi sama jàmbaar yi fàkk tëdd ja li taxoon mu toj marché Ocass indi fi ay xaj ñi ngi koy soog a trouvé léegi ndax yëf yi dafa rax Touba rax na léegi lool lool lool lool bu njëkk dëkk boo mosaan dem jii di bax daal ne Touba la dëkk dañ lay teg ca kaw sartagal la siyaare la mais léegi boo nee Touba la dëkk xam nga li ngay dégg seen dëkk ba doy na waar léegi rek ngay dégg waaw jiili bax daan lii ba kañ bu sëñ mun taxaa waxee ñu tël waxam teggi ko teg ko fële seet nu leen neex ñu doxale ko ay gone yu ndaw yu juddoogul nag bu tabaski jotee ca kanam tuuti sëñ mun taxaa fee lay toog ku mënut a amul xar dana ne jox leen ko ñaar fukki junni waa loolu gor mën na ko weesu xanaa bu doon ruus kenn ruus ko mun doon joxu téer kenn jox ko sëñ man damaa yaakaar ne ñii lii nu nekkee jiili bax daan dañ koo tëyu dañ leen a xabtal ndax sëriñ kët ci moroomu lumb man lii ma gis senegal jii di waxtaan ba ma fàttalikoo ba nëgë ni maa ngi koy soog a gis Sénégal ñaar fukki at juróom Ablaye Wade di opposé na ko fi lu ne ko lu ne def nan ko ko mais Ablaye ñaar fukki at juróom Ablaye Wade di opposé na ko kenn musta dégg Ablaye Wade ak ku mu àndal nga saagab sëriñ wala nga diingat kilifa diine lii mu am tuuba tey nit ñi bëgg ko yàlla ak yonen looloo tax Abdoulaye règlement de wut de compte musta saagab sëriñam ku mu àndal nga koy politigal musoo dépassé kilifa diini lii moom c'est la première fois et ça sera la dernière fois muy soog a am Sénégal te dana jeex ci nii walla mu jeex ci naa lii am Touba dana jeex ci nii wala mu jeex ci naa ndax baadoo kenn du séq ak moom janax nee naa leen dañ ko yóbbu ndar dëkkal ko quatrième étage mu wàcc gas ñu yéegalaat ko mu wàcc gas ñu yéegalaat ko mu wàcc gas ngeen góor gu ko xamal ne leen kii baadoola la bàyyi leen ko moom la xam mais ay baadoo rey taaraar yu bon ñoo rax ci dikk Serigne Touba bii fekk fi sëti Serigne Touba yii di Touba di titre foncé mais ñoom ñu jël décision rek ne lu lu lu fi sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa lii moo am dafa toppe ba am ko daa topp ay magam ba tey ñëw nangul leen topp ci seen ginnaaw ku nanguwut kenn yilif la nit du doo mës a yilif nit ci àddina barke Sëriñ Abdoulaye Mbakke mi may yaakaar ku nanguwut ci àddina kenn yilif la doo mës a yilif nit ci àddina kilifa dafa baax ku amul kilifa ku ne jinne da la yilif waaye réewande bi ma gis fii léegi cëpp-cëpp bi ma gis fii ak balañ balañ gi ma gis fii gone yu góor yu baax yee nag ñi ngi ci marché Ocass yi gérer seeni kan seeni magasin lay seeni intention di dem yi sii nekk du ak fu nañ ñuy dem ña jotiwut sii nekk Dubaay ñu ngi sarse seeni bagage fii bitig ba mu fees del di dem di jël ci banque yi di leb di fay liggéey seeni liggéey ñii gaari seeni oto ña amul oto bu nu wàccee ñibbi seeni kër bu sëñ bi santaanee ñu yàkkamti lool te seeni place dem dox ci waaye nag Touba daa rax léegi y a quelque chose dedans te nag sëñ Mountakha lii mu def da ko yéex a def jël dëkk bi teg ko ci loxo Baay Faal yi yi nga xam ne nii sëñ Touba képp a leen ñor wala nga ko xam weeru koor jot ko attana tiimi nag tiimi gileem tiimu yàpp tiimu ganaar tiim lu nekk togg ko ba mu ñor nga joxe ko te doo ci mos lu tol ne karfati la kon ñooñu liggéeyal sëñ bi rekk leen ñor yal na leen yàlla taxaw yal na leen sëriñ Touba mii ni liggéeyal dana leen fay waaye Macky Sall mii daa def tuubaal lu benn président musta def waaye sëñ Touba mi mu koy defal dana ko ko fay xëy na nit ñi ko tax mu di nit ñi nit ñi taxuñu mu def ko dafa liggéeyal sëriñ Touba te yàlla tax sëñ Touba moom muy liggéeyal tuubaa te yàlla tax sëñ Tuubaa dana ko fay kon may ñaan yenn ci ay taalibe bu leen xaalisu àddina bu leen orange money ak di ko wéf tax ñu jaay seen ngor di yablu seen bopp di yablu tarixa bi di yablu yoonu murid bi tarixa nag ku tee moo am Sénégal sa tërjumaan nax na la màggal day am gàmmu day am ziyaar day am lépp day am ti taalibe yi dañuy dem ku kar ne mën nga ko fanq wala ay nit mën na loo gemb ba nga fanq sunu diine yii ak sunu kilifa diine yii boobu àddina dana la jóge gasaan day am màggal day am gàmmu day am ziar day am lépp day am saaga leen yéen seeni saaga daa safati kenn yéen ku fi baax rek saaga ngeen ko ku baax senegal gii fi rek saaga ngeen ko kon kan mooy ragal seeni saaga réew mi nag li ma leen bëgg xamal mooy ku fi ragal ku ne mbay bu nga takk say bagage te dem gàm bi mbàgg dem Mauritanie ndax dana mel ne ba ngóor jaaye mbaam ma tane geen ba di fa ànd dana mel ne ja dana mel ne diggante buur siin ak Baba Jaxu maa la wax lii ku ragal na nga daw ku ñeme na nga toog li fii li fi nit war a wax da koy wax ku yàlla bind mënoo tee nga wax ko ay saaga mënunoo tee wax li xew ci réew mi ñaaw na ñuy toj ay consulat yoo xam ne sénégalais yépp a ko bokk ñii di waajal màggal ñii di waajal tabaski ñii di waaj ñibbi ci seeni kër ñii moodu moodu yu am jom am fulaak fayda liggéey rek tax leen jóg ak seenu njaboot nga dem fekk ab consulat yow nga ne dangaa ngaa mere Macky Sall da ngay dem taal consulat boo xam ne nii sénégalais yépp a ko bokk ma ne seenu réewande da leen a dab ñu leen gën a xamante ku rek a nekk ci réew mi te maa ngi lancé appel président Macky Sall jëlal sa matu matukaay di ko lancé général Moussa Fall di ko lancé ministre de l'intérieur kuy xool la ca gannaaw bal bu tàkk doo tiire yow nag Macky Sall ku la mere ministre yu bon ak directeur yu bon moo tax mu mere la mais yow ci sa jëmmi bopp gàcce ngaa la def nga fi lu benn président mus musta yor Sénégal def liggéey nga fi lu kenn musta liggéey te kenn dootu ko fi liggéey maa la wax lii yow la nga waxoon ni Sénégal la ñor bi nga ñëwee toog wan nga ni Sénégal la ñor ndax loo am def nga ko ci ay sànc ku la mere ministre yoo fal ñuy bon ak directeur yoo fal ñuy bon noonu noonu lan la mere Thiès nag moom Maodo Malick Mbaye gàcce ngalaam Maodo Malick Mbaye bu Thiès gàcce ngalaama son excellence boo amee koy téye téyel Maodo Malick Mbaye borom mouvement gëm sa bopp te seeyal ko ci sa parti bi di as gor ku waa Thiès bëgg te mu yaru ami teggin di nit ku yiw nag du woyu te du bandi salte Maodo Malick Mbaye maa la ko wax cees téyel as gor a ngoogu am ngay gor de am ngay gor yu set metti yu ànd ak yow te du la wor du du doo doo sekkere ñoom ñu di ko wax dañ laa bëgg ci seen xol di la protéger. Macky Sall am na droit tëdd ba quatre di du matin nga soxla ko sëñ Mountakha soxla ko mu jóg wuy si ko am na droit tëdd ba quatre heures du matin sëñ Bay si woon tuur soxla ko mu dem wuy ji ko. yaa woon déggu fa ku fa ñemee taxaw di yuuxu Macky Sall wala ku fa dépassé ñeseen nii la même soos waxuma la sax Afrique gii mais sëñ muntaxaa Afrique Europe ba ci gii ba fa yëf yi dafay yónnee ndaw xam ne ay sénégalais nga fa daa yónnee ndaw Turquie yàlla may ko xol bu rafet sëñ Muntaxa muy nit ku baax ku lebet ku am yërmande sénégalais yi mais yenn ci ay sagari nit yoo xam ne ay salafiste ak ñuy xeex l'islam ñoo leen gémm ñu bëgg a tilimal sunu yoonu murid wii danu koy lank ba wut ku leen kunu lank le te ñu ngi toog di leen xaar nag tey man nag li fekkuma fi man ndax man musuma dem fu Macky Sall dem ba dégg kenn ku fa yuuxu wala ku fa wax leen musuma ko fekk lii tey fekkuma fi mais ay baadoolo dëgg lan ak ay sagar nit yu tekkiwul dara yoo xam ne nii dama ne kuy fekk ku gaare oto nga taal ko sa baay amul oto yow amoo oto liggéeyoo ba jënd oto sa baay amul oto kuy fekk kër jàmbur gu nu tabax ba mel ne panel nga taal ko sa ndey amul kër sa baay amul kër sa kenn amul kër ay walla kaana képp a koy def ñu tekkiwul dara mais ku ñaq ba jënd oto gaare ko lu fekk ku gaare oto jàmbur mu di ko taal baa muy taal këri jàmbur lan la lan moo fi ñor ba ba di ko macc lan moo xew senegal ah? di faat ay bakkan di rey ay nit da ngeen defe ni gendarme yeeg policiers yi rëy ñu kenn li xew xam nañ ko noonuy dof ci réew mi lan dëkk ma na ku ma saaga ma delloo la saaga wa ba du ma yem ci yow dong sax ku fii saaga ni ndey kooku dala koy delloo bu tamante ñi ñëwee kenn du mu njëkk ci sa maam dëmm la lan la lan moo xew ak lu fi ñor bandi ko mat ngeen bëgg a taal réew mi def ko doom ay gor yu baax yu liggéey yor seen teraanga politique nu politique lu ngeen da ngeen di taal réew mi ndax lan yéen xeexu leen Macky Sall de nit ñi defuñu xeexu leen Macky Sall sunu kilifa diine yi ngeen xeex ñoo noonu lañ leen yebal gemb leen jox leen xaalis ne leen dem leen xeex l'islam looloo leen tax a jóg mais ñaari dërëm mënu leen ko ci ñoom barke Serigne Abdoulaye Mbacké mënu leen ci ñoom ñaari dërëm dañuy gàmm dañuy màggal dañuy siyaare talibé yi dañuy dem yéen yéen kan lii daa ma sa am Sénégal ñaar fukki at ak juróom Ablaye Wade opposé na ko fi na ngeen di dégg mu saaga kilifa diine wala kenn ko ànd ak moom saaga ko ngeen jóg ñëw rek réew di cëppi cëppi ku tëb tax gudd boo cëppee loo gàtt te njong yi dana yem ci àdd yi comme fu ngeen ni turbalee teeke bodde mais Touba gi moom loolu jeex na fi ñi ngeen ko siqa leen gën di abatantoo téeméeri junni yoon jeex na fi te suñ leen ko waxee war ngeen xam ne tuubaa loolu jeex na fi Macky Sall di ñëw ci sëñ Mountakha ngeen taxaw di ko tëkkaleek sagar nit yoo xam ne nii tekkiwul dara dee bëgg tey waaye ku yàlla matt yaa ko fekki beneen bi ci des nag dama koy ñaan président Macky Sall fi may daaneele moo dama koy ñaan li ma koy ñaan mooy Walfadjri gee mu xool ci Sidi Lamine xool ci Ahmed Khalifa Niass ndax génn gula gudd na waaye lu ca laal borom yëg ko loolu laa koy ñaan na xool ci Sidi Lamine xool ci Ahmed Khalifa Niass mii bëgg ko fu mu toll ña ngi koy saaga taal nañ këram taal otaam ngir yàlla ndax jëmmi makki Sall xool ci moom Sidi Lamine nekkatu fi amet Khalifa Niass a fi ne man maa ngi lay ñaan yow président Macky Sall lii ministre bi def tëj Walfadjri woo ko ne ko na ko tiggi bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey fii kenn niw fi yàlla rekk a fi ne doomu aadama mën a nun moromam dara kun fa yëkkun borom mbaar mii amul jën kepp moo mënal nit dara kon maa ngi lay ñaan son excellence te di la ko ñaanaat te bu ma sañoon nga di ma déglu ndax du ma la digal lu bon te kenn gënuma laa bëgg ubbil wal fajiri bàyyi leen seen euh, fréquence ñu liggéey nan daal liggéey ku tëb tax gudd boo cëppee loo gàtt aayat nag ku dégg séeréer te ngeen bàyyi ñaari baat ak ñett yu ne nem rek ngeen jël photo Maysa Sele Njaay bi ne ko fàng ak Moussa Fall ne ko rek toppee leen jam ñaajo la ma leen waxoon ngeen leen ñetti dambay mango nañ leen dem leen ba Touba te bu leen noppalu fen fenn ñu ba ñuy jàng seen métier di dugg armée boobu Macky sal faloo gut ñoom xamuñu kuy makki sal ngir yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ganaar yaa ngi fi ndawal gaa ngi fi gileem yaa ngi fi lépp a ngi fi togg leen ci lekk te bàyyi doomi jàmbur yi sa ngeen leen seen lamiñ yi seen cati lamiñ ñu ñuul yooyu ngeen samp leen bàyyi leen doomi jàmbur ngir yàlla lekk leen ci dugub ji ceeb beeg laax bi ak ganaar yeeg yàpp wi te bàyyi doomi jàmbur yi sonal ngeen leen tarab amu leen fulla amu leen fayda ñàkk ngeen jom